ci nga ne leen ba dañ cee def dara faaw nga laaj laaj ko ci ndigal mu jox nañ ci ndigal ba noppi nag euh, soññee ci ngir xam leen ne lépp yësuut wane Serigne Touba wane liggéeyu Serigne Touba wane li Serigne Touba bàyyi wa jaala kalimatan baaqiyatan fi aqibihi ndax bu Cheikh Mouhamadou Moustapha farluutoon kon Serigne bi du si yoon wi ak si tey di téeméeri wane na ne Sëriñ Tuubaa noppi na ci yoon kon nag loolu wane li li fi jaar ci diggante bi lépp ci mboolem kooku fi ma sa wutu tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Fadil ba ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba agsi ci moom mii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla suñu borom dolli dolli ay wéram dolli kattanam ba mu yàgg taxaw liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu wax ne ne ñu ko ko yëgalee moom daa wax ne lim ciy soññee mooy ndegam xam na li ci war lépp moom la waroon ba soññoo ne du ko bokk kenn ndax jàpp na ne positif am diggam ak Sëriñ ñoom sakkuñ ko laaju ko ko moom ci boppam moo wax ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ndegam moo fi nekkee Sëriñ Tuubaa jàpp na ne moo war a moo war a gàddu lépp def ko def ko addi Sëriñ Tuubaa moo taxit mu yëkkati eh, téeméeri million ne da ko bëgg def ci bis bi ngir li koy dundale li koy waaje lépp jàpp na ne ku ko ci fekk fekk si ko waaye loolu moom addee boppam la joxoon diggam ak Sëriñ Tuubaa la ndax lii xam na ne yow da yaa fi ne ci kanam jóg di ko taxaw waaye yoon mburu yëpp ko bokk yoon yëpp nga koy defal da nga yoon yëpp nga koy defal nag te moo fi Sëriñ Tuubaa kon jàpp na ne lépp moom la kon nag mi ngi jot laa rek cantam ci yow ak ngërëmam ci yow ak ci njaboot gépp di ñaan yow itam nga yàgg wuutu sa waajuru tedd wa ndax xam na cër bi nga ko sédd ak fi nga ko teg ak say diggante ni mu demee ak doyloo gi mu am ci yow ak yaakaar gi am ci yow ba am na bis boo xam ne wax na ma ci làmb ñëw ne ma sëñ Ahmadi eh, ngatt moom suñ tuwaale ci man yàlla toog kon loolu xam naa fi mu la teg kon ñu ngi sant bu baax di jeexal foofu kàddu yi di ñaan bis bi itam muy bis boo xam ne dana jëriñ adduna sëpp ndax adduna sëpp mën nañ ci jëriñu ndax lu am ci yoon wi rek ci téeméeri at yi la amee waxtaane nag eh, li sëriñ bi def rawatina njaareem ji nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg na fa ak liñ ci war def lépp xam naa ñoom danañ ko leer ci yéen jotaay yu gën a yaatu waaye sëriñ bi daal mi ngi lay sant bu baax di ko di ko tàbbi tàbbi ci biir liggéey bi di ko defaaleel mboolem ko yaakaar sëriñ a itam ndax hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azaabin aliim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum moo tax mu jëli dóor ko ci biir te eh, suñu kilifa gu tedd gi suñu saaliw daa wax ne bokk na ci njëriñul addiya nee na daa wax ne bokk na ci njëriñul addiya dana fekk fu dara mu def fekk fu nekk mu baril ko waaye dana dana fekk fu lu nekk mu barkeel ko kon nag ci addiya jooju la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum sëñ Bassirou maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ngay ndawal sëñ bi mu yebal nga ñëw di teraanga ji ñu sant di ci di ci gërëm li li moom xër xërëm la waaye mën naa yées lii te ñu gërëm ko waaye xam ne eh, dajale alal taxut ñu def ko eh, kon lu ci def rek réer ni ci noonu dëgg nag yëf yi dëgg la noonu ñëpp ko bokk yëf Sëñ Tuubaa ginnaaw gi kon noo ko sosoon Daaru Xudoos sosoo moo tax jàpp téeméeri at yi waaw buñ ko ci màggal fàttaliku ci sëñ bi leen ci am dafa ko def biir yoonu murit moo ko war a jiite kon nag léegi lii nga xam ne moom lañ koy defal ci def nag sant nañ ko waaye séntu woon ci séntu woon lii moo tax bari na fi noonu lool lool yow nañ ko ci gërëm di ko sant di ñaan muy agga def lu mel nii te daje see ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax muy jëf xam na nag ni jàppee jàpp ko yoonu murid yëpp muy xër gu mu xër ci sëñ ci moom fonk na ko jàpp na ko daanaka ñëpp la kon nag li dafa baax rek waaye man wax dëgg yàlla lu ma def li muy jàppee wax dëgg yàlla xamoo ko waaye nag moom ak baaxam xëy na moo xam ne tax ma wax ko daal waaye nag ne ko ci gërëm ko sant te ñaan loolu ma jàpp ci noonu yàlla dëggal ko jërëjëf.